Ils ne font plus d'escale au port de Caravane depuis plus de deux ans maintenant. Depuis le mois de mars dernier, le bateau ne s'arrête plus à Caravane. Il n'y a que Agen et Jambon qui font le, le circuit et ils ne s'arrêtent pas à Caravane. Cette situation n'est sans conséquence pour les populations vivant dans les îles de la Basse Casamance. On s'ouvre à cause du bateau. La caravane est morte. Sans le bateau, la caravane est morte. Parce que toutes nos activités qu'on fait, c'est avec le bateau qu'on puisse le faire. Il s'y ajoute l'aspect économique. Les femmes du village elles ont leur jardin. Elles ont du tout, surtout cette année où le jardin a tellement bien donné. Il y a la pêche, mais elles ont des problèmes de couler leurs produits. Allez, payer les marchandises amenées ici. Fatiguées de vivre ce qu'elles qualifient de manque de considération, les populations interpellent les autorités de l'État, en chef le président de la République Macky Sall. en croire ces populations, l'État du Sénégal aurait mis plus d'une dizaine de milliards de fonds CFA dans la réalisation de ce port de caravane qui aujourd'hui, à leurs yeux, ne sert absolument à rien. defatu escale ca port bu Carabane lolé depuis ñaari at ci ginnaaw. fi mu nekk ni ñaari at ngi ni bato bi taxatul Carabane. waa Kosama ñu fexe bato bi ñëw gouvernement bi na taxaw bato bi ñëw situation bi lay ñakkul ay conséquences ci askan wi yeewoo ca île yu nekk ca Basse Casamance. di voyage di dem Dakar da ngay jaa dugg si bato ndaw yi dem ba Ziguinchor wàcc soog a ñëwaat ba Carabane. ñu toftal ci li nga xamante ne moo di aspect économique bi. soo amee looy jaay dangay ngay fay gaal li ñuy wax courrier nga dem ba Elinkine soo ko su jarul nga dem ba Ziguinchor soo amul glace du day nëb. ñu sonn di dund li nga xamante ne ñoom loolu la am manque de considération askan wi di interpeller autorité yi jiital ci président de la république Macky Sall. ñu ngi ñaax gouvernement bi mu japp lañu jigéenu karaban sonna nañu. bu ñu sukkasnikoo ci askan wi lé nguuru Sénégal jot naa dugal ci lu ëpp fukki milliards ci sunu koppar ci réalisation bu bile port bu Carabane bi nga xamante ne jamono ji amalu leen benn njëriñ.